jullit yi lu tax bañante di am seenu biir loolu la samp tey fas yéene ko waxtaanee moom Fanta Soukouna indeeti sujet bu am solo di jikkoo ak jikkoo euh, Fanta ma bàyyi gan gi. waaw soxna Ndeye Fatou euh, tey jii fas yéene waxtaanee li nga xamante ne mooy euh, ñun jullit yi lépp loo xamante ne ci wàllu jikko ci ñun ñii lay tàmbalee fas yéene cee am ay laaj yuñ lay laaj soxna Ndeye Fatou. ñu ngi lay dalal ci euh, plateau bi ñu fas yéene waxtaan li nga xamante ne tey jii lan moo tax ñun jullit yi euh, daanaka duñu euh, bëggante suñu biir duñu jàppante daanaka ay Aïcha loolu buñ koy wax si suñuy làmmiñ rek lay lay lay lay tegu mais duñ ko jëfee. Mhm. tey jii nii maanaam euh, soxna ay Aïcha bu ko yàlla dogaloon tey yàlla am lu mu ko dénk as tuuti euh, damay jékki-jékki rek wala euh, Fatou ju Faye ma am loo xamante ne dama koy gis nii rek daal di koy bañ te du ma du xam lan moo waral ma jékki noonu rek bañ ko waaw soxna Ndeye Fatou yow en tant que yaa Seyda ñu doon la laaj yooyu jikko est yooyu dañ lañ ko séntu ci li nga xamante ne ñun euh, jullit yi. alhamdulilah rabbil alamin soxna Fanta maa lay nuyu di la ziar. Mhm. alhamdulilah indi nga thème bu am solo. Mhm. ci thème d'actualité la. Mhm. ndax ñun ñooy ay jullit. loolu la woote woo dëgg la. wante nag dafa am foo xam ne war nañ fa teg sunu tànk. mooy jullit lañu. jullit ci lan lay tënku mooy diineem. diine ji mooy lislaam. waaye ñun dafa am ñoo xamante ne ñoo ñu jàngal. ñoo ñu yar euh, l'islam jàngaluñu. Mhm. de un l'islam yaruñu. Mhm. luy loolu lu mu bëgg a foofu mooy dañoo dañoo tudd ay jullit. Mhm. tubaab bi ñëw fi am fi doole. occupé occupé fi place bu am solo. teg fi ay école am. ne nañ ca jàng ji. la mu bëgg ñu jàng ñun moom la ñuy jàng te ku ne xam ne njàng dafa am solo ci ci doomu aadama. njàng lu am solo la kon nag ki la jàngal su ngeen bokkut bokkul diine. la mu bëgg nga mel la mu bëgg nga jàng la mu bëgg nga xam loolu ngay xam mhm. su fekkente ne kala jàngal mhm. bokk leen diine la mu bëgg nga yaroo noonu la ñuy yaroo mhm. nga may ma ma def benn parenthèse bu ndaw rek ci li ngeen doon wax sànq ci problème mu école saint ki gendarme bi sëñ bi toogoon fi dafa wax lu am solo man je suis d'accord avec lui ci benn côté mooy tey su fekkente ne école boobu du école musulmane ñu jël seeni loi ne lii mooy loi bi mhm. donte ñi ngi doon bàyyi xale yi ñuy muuru dañ mhm. jékkee-jékki xëy na loolu atum ren la parce que ñun ñi ngi suivre kii bi actualité bi ñu ngi suivre bi mhm. dañu jékkee-jékki de mosuñ leen koo tere ren lañ teg loolu kon dina jur coow mais su fekkoonte ne loolu loi la bu ñu fa tegoon problème warul am parce que ñoom duñu ay jullit kon kuy ñëw man man fu ma jëlee sama côté daara ja ma yor école ba ma yor man du ma accepté xam nga waa wax na ko fi sànq moo ko coach wax nañ ko fi sànq man du ma accepté ku muuruwul ñëw jàngee sama daara du ma ko nangu ñoom bu ñu leen dalee dañ leen a tooñ mhm. ci benn côté dañ leen a tooñ parce que ñoom ñoo moom seen école mhm. du ñu ay nitu diine duñu maanaam duñu ñu dunduñu l'islam mhm. kon am nañ droit imposé lu la leen neex waaye lan mooy loolu rôle jullit ñi foofu mooy lan jullit ñi dañoo waroon a récupérer seeni doom yóbbu ci école yoo xamante ne Euh, ni mu ko waxee école ay jullit lañ mm-hmm. loolu mooy fulla bi gis nga bu ñu ko defoon léegi problème bi jeex ñoom dinañ delluwaat delluwaat ginnaaw ca lañu ca la def parce que xam nañ ne jullit yi ñoo fay majorité waaw loolu laa bëggoon expliquer ci loolu mm-hmm. bëgg la wax ne ginnaaw tubaab bi moo ñu yar mm-hmm. tubaab bi moo ñu moo ñu jàngal kon moo tax jullit ñi mel ni ñu mel léegi nag lan moo fi nekk ku yàlla baaxee tuuti rek ku yàlla baaxee tuuti rek alxuraan dafa wax lu am solo euh, ci suratul araf mu ne yaa bani aadama baada auzu billahi min asheytaani rajim mu ne yaa bani aadam laa yaftinannakum asheytaanu kama axraja abawaykum min aljanna yanziu anhuma libaasahuma xam nga aaya boobu dafa daw yaram sunu borom dafay mel ni ku ñuy supplier moytu leen yenn doomu aadama moytu leen te ñun doomu aadama ñooy ñet ñun ñooy représentant yàlla ci kaw suuf ñun ñoo fi ñun ñoo fi nekkal yàlla ci kaw suuf mm-hmm. nit ñee ngi fi malaaka yaa ngi fi jinne yaa ngi fi mala yaa ngi fi mm-hmm. mais yàlla nee na ñun ñun la ñun ñoo koy représenté ci kaw suuf kon ñun dafa am dafa war a am nu ñu mel mm-hmm. jullit xàqan jullit dëgg du soxor su fekkente ne diine diineem yar na ko su fekkee diineem jàngal na ko kon ñun dañ ñoo tooñ ba pare nag ñu nangu tooñ wi yàlla su fekkente ne dafa ñu daf ñu ne yéen yéen a ma représenté ci kaw suuf Euh, lu ma kon yéen fexe leen waay waay rikk waay bu leen nangu seytaane ma génne woon seen maam aadam ca biir aljana mhm. la moytu leen fitna googu ko daloon ca biir aljana ba ñu génnee leen bu leen nangu yéen loolu mhm. tey loolu fan lan laa bëgg foofu mooy tey tubaab bi moo ñu def loolu place seytaan te seytaane mooy tubaab mhm. sama sëriñ Oussa Ali lool loolu la wax nee na seytaane mooy tubaab parce tubaab bu la waxalee yàlla bu waxalee yàlla amul diine turée fi nekk rek mais tubaab amul diine mhm. wax nañ ko fi léegi ñu ne la laïcité mhm. laïcité du diine système la boo xamante ne tubaab bi moo ñu ko imposé te dalay nax mhm. dala naan euh, ku ne sañ naa du diinam mais yaa xayti bu fekkee ku ne sañ naa dund diinam coowal muuraay waru fi am waru fi am te li nga xamul ci muuraay mooy muuraay dafay sécuriser jigéen sécurité jigéen la gis nga violence faite aux femmes yi ñuy wax nii violence faite aux femmes yi ñuy wax nii l'islam l'islam da koo réglé yàgg na nan la ko réglé mooy dañoo dénoncé affaire bi saxaaba yi ñoo dénoncé affaire bi ci kanamu yonent bi sallallahu alayhi wasallam ñu ñu ñu ñu dénoncé ko teg ko ci taabal ji aaye wàcc ci décret jóge ci asamaan ne jigéen ñi corriger leen seen solin fii ak loi bu ñu fi mën a wàccee mhm. convention bu ñu fi mën a indi lu ñu fi mën a def mhm. peine de mort ak lu mu mën a doon laaw su fekkente ne jigéen ñi corrigé wuñu seen colin violence faite aux femmes wallahi maa ngi lay waatal ne du fi mës a dañ ah, parce que loolu moo ko réglé mais bu dee côté boobu moom du ma si d' ak yow soxna si am nga ci droit d' am nga ci droit parce parce que man la moo tax tey bu ñu jëlee kaaw euh, euh, euh, Binta Camara Euh, ñu ngi ñu ngi jégalu bu baax a baax di remuer waat plaie bi si ay famille mais Binta Camara c' est une femme voilée une femme correcte mais y a des yoo xamante ne nii c' est des gens yoo xamante ne ñoom même bu fekkee ne dangaa sol sax hijab muur say kanam sax la bëggee dugg dugg la problème bi nekkul foofu problème bi problème c'est plus large également nekk problème bi du foofu su fekkonte ne benn xale bu jigéen par exemple tey xale bu jigéen nit jigéen day sol naka sa dul la mu sol dara baaxu ci mu génn ci biti romb jenn waay bu wérul walla ku amul diine yow jaxase nga xel waaj jaxase nga boppam mm-hmm. est-ce que ca kaka fitnaal la koy def de day dem set benn xale bu nekk ca biir këram innocent xëy na doomu nijaayam la wala doomu kiyam la mm-hmm. mu dem mu dem def ko ko yàq xale ba te pourtant xale boobu fitnaalu ko ña ngi ko fitnaalee ca mbedd ma léegi na problème bi dafa war a général mooy jigéen ñi ensemble jigéen ñi mm-hmm. nañu nañu topp nañu tënk ci suñu li ñu diine li mu ñu tëral gis nga muuraay dafay sécuriser jigéen dafay sécuriser société muuraay du du phénomène boo xam ne dafa ñëw pour defar euh, imaan yokk ngëm yàlla problème bi nekk foofu problème bi mooy sécurité jigéen ñi la doon réglé mhm. kon nag jigéen ñi muuru leen moo xam da ngay yow sàcckat nga muurul koo xam yow da ngay def naka sa dul noonu muurul parce que mooy sécuriser jigéen ñi mais du ke voilà ordu la léegi nag ordre boo xamante mais du question pour pour xàmmee également njabootu Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam da ci am solo reconnaître jigéen mais li ma la wax loolu no yëf noonu la nekkee léegi su ma dellusee ci thème bi mooy bu fekkente ne ñun dem nañ ba tubaab bi yar ñu tubaab bi jàngal ñu jikkoy tubaab bi lañu yor yaram ni mu bëgg mu mel occidentaux yi ni ñu mel tey dangay xool tey ñoom occidentaux yi nan la ñuy yaree seeni doom dañuy dem ba nga xamante ne xale bi day të mu leen du ñu am benn pexe bu ñu ciy def lan lay jël dañuy récupérer xale bi yóbbu ko ci ay ay ay ay maison yoo xamante ne wax dëgg yàlla fa lañ leen di teg ndax lan mënuñu ñoom dañuy yafal ñun nag dañuy yar nit foog ñu yar ko gis nga bu ñu ko yaree rek lépp lu ñu bëgg a réussir ñun ci biir julli ñi dinañ ko réussir incha allah léegi nag dina tax loolu coxor gi ñuy woote dina fi jóge parce que nga nekk ci barab di fa liggéey ma gis la ne xool leen ko rek kii de kenn xamul sax lu muy nuru lan moo tax ñu ko fay jël nangam ak nangam ma tàmbalee indi ay jikko yoo xamante ne waaw méchanceté yoo xam ne di koy yóbbu envers elle pour lan wala envers lui pour lan parce que base ba moo baaxul suñu raison d'être sur terre dañ ko échec ba pare ndax lan kañu jàngal kañu yar foofu la wax ji nekk. waaw ñu ñëw ci li nga xamante ne mooy euh, daanaka da ngay gis sax jigéen euh, muy sëy ci biir kër euh, Soxna Aïcha. jékki-jékki rek euh, euh, nañ ma baal ci waxin bi euh, say njëkkee jékki-jékki rek bañ la wala say say say goro loolu tamit est que du ti wàllu xëy na seen jikko ndaw si moo moo moo leen neexul ñu jékki-jékki rek bañ ko wala tamit ci ki nga xamante ne day dafa ci muy yëngu ci barab liggéeykaay su soit tey jii ni soxna Aïcha tey jii ni bu ko yàlla mayoon tey oto wala mu yor macha allah li nga xamante ne wàllu àddina lépp loo xamante ci wàllu àddina wërsëg suñu borom am lu mu ko dénk da jékki-jékki rek gis euh, benn euh, euh, nit koo xamante ne ku tekkiwul dara xëy rek bañ ko te bu ñu laajee lan moo tax nga bañ soxna Aïcha du la mën a sukkandikoo ci li nga xamante ne moo tax ma bañ. maanaam bañ gi amul cause daal. amul waaw tegoo ko ci tegoo ko ci fenn. waaw loolu loolu moo fi ne moo fi fees dell. Mm-hmm. moo fi fees dell te ko doonul lu dul seytaane. Mm-hmm. moo bëgg ñu féewaloo. Mm-hmm. li ñuy wax boo duggee ci néegu sëy mhm. li ñuy wax ne seytaane sëy bu ñu gontu takk mhm. mu mu mu lijjanti dossier mhm. bu ñu xëy takk mu lijjanti dossier bu ñu gontu tas ko loolu moom mooy mission am te déclaré woon nag suñu borom ne dinaa leen gàllankoor kanam ak ginnaaw ndey joor ak càmmuñ taxaw ci yoon wi gàllankoor leen loolu moom lu mu signalé comme moom mi ngi ci liggéeyam ñun nag ñun ñoo nekkul suñu liggéey léegi nga nekk jeeg ci biir kër di sëy ñu jékkee-jékkee di la soxore di la iñaane la nattu la ñu fay dénk jigéen mooy na muñ na muñ muñ bu rafet rafet parce que muñ tamit dafay rafet kala soxare wala kala iñaane la muy def boppam la koy def yow dalay rendre service te yëguloo ko léegi loolu bu mu tax yow nga déraillé parce que kay sëy sëy bi muy sëy mission la daf ko war a réussir sëy mission la bu ñu war a réussir yàlla di nga di nga faatu ñu ñu rob la nga dekki yàlla audité la ca sëy ba nga doon sëy kon nag yooyu ay obstacle la yoo xamante ne mhm. bañ gi ñu lay bañ wala nattu yañ lay yañ lay yañ la cay nattu obstacle la yoo xamante ne da ko war a franchir mhm. yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mooy ngeen gi mhm. yi ngeen di wax yépp def nañ ko ko ñi nañ lu ne wax nañ ko ko sallallahu alayhi wa sallam mais taxul mu déraillé dafa am benn objectif mooy lan euh, dafa am mission raison d'être sur terre mooy lan jaamu boromam mottali mission bi ko yàlla sant mu pare jóge fi sunu borom fay ko kon yow boo nekkee nit nekk jullit wala nga am diine su fekkente ne yu mel noonu taxaw na sa kanam li la war mooy nga muñ xam ne man dama am objectif yëf yi du fii fële la yàlla dana ma fay kon nag lu fi muñ naa ko jéem lu fi metti naa ko jéem a muñ te yàlla rek tax yàlla dina ma fay ñamay soxore wala ñamay iñaane loolu ñoom man lay dañ may rendre service mais loolu saleur leur concerne. Mhm. seen diggante ak seen borom la. yow tegul ci yoon wu jub bi rek incha euh, allah. so soxna Ndeye Fatou yaa Sayda mhm. li li li li metti ci ci ki ñaanante gi ak soxorante gi sax. Mhm. bu doon rek dafa yem ci euh, euh, parole verbale. ñu ñu ne taxul fenn. du ma déranger parce que nit ku la bañ aussi dala dala noppal. dëgg la voilà mais bañ ba yegg terme boo xam ne da ngay dem nit yóbbu ko ci sëriñ. wala nga dem di ko liggéey. wala nga dem di jox ay turu ak turu di ko def. Diouf dañoo toll ci extrême boobu c'est c'est boobu moom man de en tant que Ndeye Fatou Dramé mooy ma gën a ragal côté côté côté njabar njabar dafa doy waar ab jullit mën naa mel nu ne ba mu des di bokkaale yàlla jullit du bokkaale yàlla melal nu la neex ku toll ni yonente bi sallallahu alayhi wa yàlla xool ko ne ko wala in ashrakta la amalu amaluka bis boo ma bokkaalee ma màbb say jëf kon rëy na. Mhm. jullit waru koo deewaale pas-pas bu bon la baaxul. Mhm. tant yaa ngi ci kuy bokkaale te njabar mooy bokkaale rek. Mhm. ci xeetu bokkaale bu yu mag la bokk. njabar tant yaa ngi koy def bu ne jarul ngay julli bul jàpp bul julli bul woor génn nga ci diine ji kooku moom yonent bi salaa salaam moo ñu ko wax. léegi nag jàpp nit ki liggéey ko moo nekk moo gën a nekk fitna gi gën a rëy ci kaw suuf tey moom la ñuy seeyaale njabar moom la ñuy liggéeyaale. moom la ñuy suñu lépp. suñu lépp loolu la yow boo toogoon sax c'est ça yow mi nga xam ne ne yow yaay liggéey ci barab mhm. wala ngay sëy ci kër dañuy jékki-jékki ne la te nga jóg sa bopp waaye toog noonu rek loxoy neen loxoy neen lañ ca jublu mooy njabar lu woo mhm. ñaan lu dañ koy jël nag rafetal ko tuddee ko ay ñaan mhm. di ko déguiser te fekk lañ ca jublu mooy njabar yàq nit ki wante nag li ma wax sànq ci soxor ak iñaan rek lay waxaat rek ku fi jóg njabar nit liggéey ko wala ngir ngir mu yàqule danga koy rendre service te yëguloo ko amaana am na lu tooñ gu mu def yàlla mhm. bis bu duggee bàmmeel ñu jéggal ko te nag dund gi nañu yëg ne du fii yëf yi teereewul fii mhm. tubaab tubaab bi ñu yar daf ñoo jàngal na rek après la mort c'est fini mhm. ñoom dañ lay wax rek c'est la fin te fekk nag déedéet dund baa ngi sunu kanam dund gu neex mhm. dund gu am solo jannatin tajri min tahtihal anhaar zalikal fawzul kabir yàlla neen loolu mooy avenir bu assuré bi mhm. kon wax koy boobu la ñu war a defar da nga gis nit ko toog ne damay damay assuré samay avenir doom lan la ci jublu mooy na jàng dem ca école jàng fa réussir da ngay gis kuñ toog ñu ne diw réussir na réussir na àdduna mais est-ce que réussir na àllaaxiraam lu jara xalaat la mhm. kon suñu raison d'être suñu mission ci kaw suuf mhm. nañ ko xoolaat ndax lii ma gis ni de dañuy doxee nii moom échec nañ ko mhm. yàlla nañu yàlla jindi nag ba ñu gisaat yëf yi autrement mais nii ñuy demee nii mooy lan alalu àdduna moo waral lépp nag coxorte geeg iñaanante geeg lépp alalu àdduna la te nag alalu àdduna day jeex day jeex alal gaa nga fële am am baa ngi fële richesse baa ngi fële. yaa Seyda nga war a jàpp ne tey jii nii ñun jullit yi rawatina ñi nga xamante ne euh, euh, ay Aïcha ñun jigéen ñi yan comportement la ñu war a am yoo xamante ne. en hmm. tant que jullit. waaw yan comportement la ñu war a am en tant que jullit. Hmm. du ma ne échec nañ ko. Hmm. ndax sunu borom moom wax dëgg yàlla ku bëri yërmande la. waaw dëgg la tubaab bi yar nañu. dëgg la tubaab bi. jàngal nañu dëgg la def na jeexintal yu rëy nag ci ñun mm-hmm. waaye nag kenn ku ci nekk tey tey média yi ñu ngi joué rôle bu am solo mm-hmm. ci dimbali nit ñi ci seen diine mm-hmm. waaw ci dimbali nit ñi ci seen diine xëy na nañ nañ fexe def ko ci njaboot gi nañ fexe def ko ci njaboot jël xale yi yóbbu leen ca daara yi ñuy jàng alxuraan parce que nit ki mënoo koo yar yarum l'islam nga bëgg mu nekk jullit boo xam ne du soxor jullit boo xam ne du iñaan te defoo ci moom diine diine nag faaw mu jàng jàngum diine bu jàngee jàng jàngum diine nga yar ko yarum diine bu ko defee rek xale bi su màggee amaana dina am chance loolu nga def ci moom ak yéene ju rafet jim ci am yàlla dina ci jàpp bu ñu ñëwee ñun ci jigéen ñi nañu jéem a corriger nañu corriger suñu bopp xam ne fii àdduna rek la lépp day jeex lii ñu nekkee coxarante geeg iñaan ni ma ko waxee sànq alalu àdduna la dafay jeex nañu changé waat tënkuwaat sunu diine bu ñu bu ñu delloo ci sunu diine rek du ñu réer mais tant que ñu ngi toog di xoolante ay bët kii dafa li mu am nii mais ki li mu am nii yàlla boo ko wërsëgal budget la boo xam ne suñu borom da koo voté mhm. kenn mënu ci dara soxore nga ko ko iñaane nga ko ko mënoo ci dara alaa kulli da ciy jot balaa moo sàngoo suuf waaw kon nag nañu corrigé waat suñu bopp <laughs> gisee ki ñaanante gi ak soxorante gi ñu nemmeeku ci réew xam nga yàlla moom daf lay noppal boo koy xool kiñaan yow mi nga toog ki nga iñaanee saa yi ni yaa ngi koy iñaanee muy gën di avancé yaa ngi toog iñaan rek moom balaa gis sa jëf wala sa kiñaan sax yow non seulement soq bi mu njëkk am problème te ki nga jàpp ne kenn na ko jox ko yàlla ba tax nga iñaan jàngoro bi mu la mën a jox ci xol te mboolem jàngoro yi nag c'est cancer dañuy wax ne moo gën a siiw pour mën a mën a rey nit mhm. mais kiñaan moo gën a garaaw cancer ni muy def xol dafa yéeme. te yàlla dafa muy sàkk doomu aadama ku ne nee na lii nga war am. Mhm. boo jëlee lépp nag lu doomu aadama xam nga delloo ko ci yàlla am na ko juddu rek génn àdduna parce que yàlla dafa ne wow fi mhm. am na ko juddu namp ba nampam jeex deux ans mu faatu. am na ko juddu yàlla na ko doo faatu danga war a jàng alquran def lii ak lii ba noppi da fa jógee fi yàlla nit ki ne fi jaar. Mhm. làkku la nit ki ne jaar. ñu ne nag bu mu fi jaar yow na nga taxaw yow en tant que doomu aadama mm. nga ne na nga na nga na nga fànk pexem yàlla te yàlla mbër la moo xam ne am nit ñi dañ koy dàkk ci ci mbaax waaye man ci contraire bi la ko gisee mooy maanaam soxor mm-hmm. ndax ëpp bu sampee mbërëm rek nga bëri mbër mi mu daane la te bu bindee nga far balaa bindaat lay far doo ko bind mm-hmm. ku am setante bu ci jaami yàlla yi rek doo soxor dafa lu am solo mm-hmm. yàlla fii si àddina ñun intéressé wuñu ko. Mhm. gis nga buñ duggee ci bàmmeel say mbokk suul la ñëpp dem mu des yow kenn kese. Mhm. ak jëf ju baax ji nga jëf wala jëf ju bon ji def. waa mhm. nga xam ne yàlla ba sàq loo ko intéressé la. li gën a am solo yàlla dundu doomu aadama. parce que ñëpp ku si li nga nekk li leen neex yaa ngi ci. mel ni moom yow intéressé woo ko amuloo ko solo. bis boo faatoon nag bañ tële ci bàmmeel. keneen nag moom day mbi léegi mooy ñëw nag ak malaakaam ne la kaay nag fépp foo mos a jaar loo mos a wax loo mos a def dama bëgg tey ñu nga nga rendre ma compte ci loolu. Mm. bu fekkee am na jaamu yàlla boo mos a ñaanee ci sa xol bi. Mm-hmm. looy wax te kat yàlla nee na amul kenn ko sa xol di këmb ki ñaan ngay dugg àjjana. xol moom. Mm. balaay dugg àjjana. Mm-hmm. dafa set te yàlla dafa fas benn xadiis xëccu ne xajul asamaan juróom-ñaar xajul suufu juróom-ñaar gis nga makkatam bu war a gii xajul. wa ana masaajida lillaahi nga dégg ñu néegu yàlla yàlla na xajuñ fa bi ñu nekk foo xaj dafa ne ci xol la xaj xolu mm-hmm. jàmm sell mm-hmm. kon yow bu fekkee sa xol bi da nga bëgg yàlla nekk ci il faut mu sell sa liggéey mooy lan mm-hmm. lu ne yàlla la te boobu noppee du tey te ñëpp dañ fi jógee xamul te kenn ku ñu tàggee ci rajo nga dégg ñun dund na cent ans quatre-vingts ans sax léegi ko kon dundi gi bu gàtte boobu noonu loo ko def jaamu yàlla bu sell la boo dajee ak loo koy wax jar naa xel. jar na bàyyi xel. Fatou. am solo. ñaan man je bi wax na ko soxna si am tamit wax na ko Ndeye Fatou je me dis que ne eh, xol bu sell daa war a ànd bu dafa war a ànd ak islam. Mhm. déjà ñoo war a yow na nga war a xëy ne ji jullit nga ne da ngay jaamu yàlla ba pare sa xol di ñuul. loolu déjà rek nit war na xoolaat boppam ci loolu comme ni nga ko waxee wax nga ko sànq aussi Seyda ne rendre service sa booy iñaanee nit ki da ngay rendre service nit ki ci boppam parce que au moment où nga koy def yaa ngi koy gën a jox jom mhm. yaa ngi koy gën a tax mu xoolaat boppam ci lu nekk mhm. mais leen moom a jaaxal rek jamono bi fu mu nekk instant bi dafa dafa dafa doy waar dafa bari parce que da ngay gis nit koo xam ne capable na yow ah yàlla war a rey war laa nga war ngay dee comme sa morom juddit yow ngay ngay dem bay ñaanal nit ki sa morom doomu aadama muy dee nag iñaanee nga ko gis nañ fi temps benn ka koo xamante ne yàlla may na ko wërsëg am na accident mu am mais nit ñi di commencé di di ko di ko waxal ne ko di di ko génne image am wala di yoo xamante loolu iñaan la parce que mm-hmm. yàlla may na ko benn wërsëg ku mm-hmm. nekk ak yàlla na wërsëgee sa sa dund mm-hmm. waru tax nga ñaanal ko dee wala nga ñaanal ko mu nekk ci état bu critique ba ba mu far dee wala ngay tàggee nit deewul ba pare da ngay gis daal wala nga dem ci bu comme ni nga ko waxee sànq ñi dem di la di di la defal yéen pour nga dee wala nit ki di bëgg a dem nga ne ko doo fi demee di ko def ay yéen te njabootamat ñëpp yaakaar ko donc je loolu moo jiitu avant yow sa borom mi la tiim booy def i iñaan sax xanaa war ngaa tiit sax mm-hmm. moom mi la tiim ngay def yenn yi moom moom mu nga xam ne ne moom moo la bind yow boo fekkee da nga koy camoufler sax moom suñu borom mi la tiim xam ne ne yow yi ngay def danga koy def nag iñaan wala di ko def mbur par gàllankoor sa morom doomu aadama ko war nga mën a xoolaat sa bopp avant tout je pense que ne islam moom bu ñu ko waxee xol bu set a tax bu ngi gisee suñu kilifa diine bu ñu waxee Abdou Aziz da baax baaxaayam a tax bu ñu xoolee kilifa diine yi sëñ Saliou Mbacké mi nga xam ne modestem yëpp bu ñu xoolee maam El Hadj si Sy sëñ mm. Touba bu ni ñu ni ñu doon comporté woo rek ba pare ne dañ leen a gëm ba pare ñun ñu yor benn comportement boo xamante ne moom mooy loolu donc je pense bu ñu ciy wax dañ ciy wax lu bari parce que moom la ñuy vivre suñ morom moom lay vivre suñ bokk moom lay vivre mu ngi noonu a na euh, waaw sama maam daana wax naan yàlla ko yàlla yërëm xare ko àjjana daan wax naan ko maam ban ñaan moo gën a gaaw mu ne la soo jullee pare rek neel maa ngi ñaanal mboole mu jullit boo nee mboole mu jullit c'est cela veut dire que la nga yéene sa bopp loolu nga yéene sa morom kon mm-hmm. pour nga am day yomb parce que yàlla moom bu xool yëpp tàppe woo lépp baax rek ñëpp gis ci seen bopp mm-hmm. et je pense que bañ nit ba nga koy def yenn yi terewul tamit nekk di avancé ndax yàlla mu xas bu bind ci bi jëw jëw aad jëw doomu aadama ala kulli aan da koy da koy da koy daal di am bu dul fii it di feneen donc euh, mu doon nag thème boo xamante ne nii moom macha allah bu ñu ko doon waxtaanee également duñu duñu fi jóge Fanta waaw Euh, buñ ko doon waxtaanee duñ fi jógee euh, soxna euh, nu mu tuddati <laughs> Aïcha ndax xam nga lu tax dama dama dama dama bég ci thème bi ñuy jël nii parce que boo xoolee moom la ñuy dundee bu ñu xëyee ci moom la ñuy nekk bu moom la ñuy añee moom la ñuy réeree tax na sax nit sax léegi mënatul sax yàkkamtuwul sax buy def dara sax ci kaw nga am sutura sax da ngay làqatu parce que làqatu bi mooy lan bëgg na euh, bëgg na def dara mais ëllëg est-ce que nit ñi bu siiwee nit ñi dinañ ko bàyyi mu mu mu jàll mm-hmm. loolu moo tax ah, euh, tey ma amaat euh, mbégte ba nga xamante ne soxna ay Aïcha boo xoolee sax dama dama kontaan waaye di di jaajëfal ki nga xamante ne moo ma boole ak moom mooy soxna Tend Fall di taalibe Serigne Saliou mais euh, madam si maa ngi lay nuyu depuis euh, golf moom moo ma booleeg euh, soxna si waaye bi mu fi ñëwee macha allah soxna Aïcha gis nga xam-xam la fi génnee. ay jikko yoo xamante ni ñun jullit yi war nañ ko gën a bàyyi xel bu baax a baax soxna Aïcha xam naa dañuy bàyyi jox ko mu tàggatoo ak mbokku téléspectateurs yi xam naa ba. àjjuma ak beneen thème incha allah. waaw bu ndaw rek euh, iñaan feebaru iñaan yonent bi salaa nee na saa saa bu saa bu nit xëyee fajar mhm. nee na ko muslu yoon mhm. mooy lan musluwaay yi ngay def askar yi ngay def mhm. aajowul takk gàllaaj wala yooyu déedéet yooyu yeneen mbir la da lay dugal ci yoo xamante ne jaru ko yàlla mi ngi fi yàlla moo ñuy aar guddeeg bëccëg gëmul nelawul yonent bi salaa salaam nee na ku ku julli ba pare na nga jàng ixlaas falax ak naas fajar na ci jël ñett euh, boo jullee tisbaar nga def ñett bu mhm. nga def benn bu ci nekk benn boo jullee tàkkusaan la même chose timis nga def ñett mhm. yoon parce que dafa dangereux balaa ngay tudd balaa ngay tëdd def ñett mhm. lan laa bëgg wax foofu mooy boo jëlee tey bi mu ne wa min charri nafasaati fil uqad lan la ca teg wa min charri xaasidin isa xasad maa ngi muslu yàlla ci ayu ku iñaan boo xëyee. boo xëyee. jàngal ixlaas mooy qul huwa allahu ahad. nga jàng ko ñetti yoon. qul a'uuzu bi rabbil falaq. qul a'uuzu bi rabbin yooyu ay ay ay muslaay la la yoo xamante ne dafa baax. yonent bi salaa salaam giiru dundam loolu la doon loolu la doon def. digal ñu ñun julli jëpp ñu koy def. Mhm. saa boo jullee julli farata nga jàng ci bu nekk benn timis ak. fajar moom dañoo xaw a doy waar mhm. nga muslu ci nàmpal ci xale yi mhm. dina tax di nga mucc ci yu bari yonent bi moo ñu ko garanti mhm. waaw loolu moom lu am solo la nañ ko jàpp du du lu banaal du lu loo xamante ne ah ay kii la rek iñaane doomi aadama ak ak ak ak catu ko ban moo ci gën a garaaw cat moom cat fitna mën na la bañ a iñaane mais saa la ah sa kol bi ah soxna Ndeye Fatou sa crayon ah. ah sa kii bi ah. loolu aussi l'islam nee na waaw d'accord nee na del del del muslu muslaa yi ngay def askar yi ngay def mhm. a'uuzu bi kalimaatillaahi taamaati min sharri ma gis ngeen soxna si gis nga soxna si askar bu leen ci kenn nax dafa mel ni nga taal sa oto dem ca àll ba wàcce veer yi fa gaynde ya nekk wala bukki ak segg ya nga wàccee say veeru oto bu ñu la gisee nan la ñuy def ñu ngi sa kaw te bu ñu agsee dañuy dugg ci oto bi lekk la kii askar dafa mel ni ki nga xamante ne dafa taal otoom dem ba ca biir gayndee aj veer ya bu la gayndee gisee nu ñuy def dañuy ñëw jëm sa kaw mhm. ndax dinañ la laal duñ la masa laal mhm. parce que lan da nga da nga def barrage sa digganteek ñoom diggante kuy askar ak ku dul askar loolu mooy différence bi boo yaakaaree ay ndomb wala ay ay xar fa fuufa mhm. pour ñu aar la gis nga kon ñun ñàkk xam rek ñàkk a xam at. si ah kay ayatul kursi ci la ci la bokk waaw yooyu yëpp boo ko defee da nga teg ayatul kursi yi bëri na askar yi ñu war a def ci suba gi ngir mu aar la. waaw laa lay wax ñàkk xam rek wala ñàkk a gëstu mën jàpp. Euh, mooy li ma wax ci tàmbali ba. Mhm. maanaam sunu diine ñun ñuy woote woo jullit sunu diine moo ñu war a jàngal moo ñu war a yar. Mhm. leneen lu ñuy jàng rek ñu teg ko ca parce que wutum xam-xam moom. Mhm. moom moom yonent bi sallallahu alayhi wasallam moo ñu ko digal nee na dem leen wuti leen xam-xam donte da ngeen dem ba Chine. kon sàkku xam-xam moom farata la. wante nag yow sa diine moom rikk waay fexeel rek bul faatu te jàngoo sa diine wala xamo sa diine. waa mais am na ñoo xam ne également euh, euh, euh, li nga xam ne dañu koy tari ñoom ñu mënuñu ko peut-être dañ leen koy bindeel ci ay muslaay jox leen ko saa bu ñu xëyee di ko raay. nan lañ koy bindee nan. yonent ti sallallahu alayhi wa sallam alxuraan waxul uktub dafa ne xul auzu bi rabbil falaq maa ngi muslu ci borom ki nga xamante ne mooy dugal mooy dugalante guddi gi ak bëccëg bi xul waxal. Mm-hmm. waxul uktub bindal. yooyu eh, ay eh, caaxaan la rek dafa am fenn rek fu ñu koy nangoo fu tuuti ci xale boo xam ne xëy na xamul dara nangam ak am nañu ko nangu am nañu ko nanguwul mm-hmm. parce que yu mel yooyu dafa dafa dafa sensible mm-hmm. yonent bi salaa salaam fi mu teg tànkam nañ fa teg nañ fa teg suñu tànk du ñu réer mukk du ñu sànk mukk mm-hmm. mais boo yaakaaree xëy diw xëy takk loolu aar la laqarti foo foo laqu feneen fu dul yàlla laqartikat ya laqarti la koo yaakaar am na ku ko mën waaye yàlla kenn mënu ko laq waaw tamit am na ci solo. waaw li li ma lay wax nii pas-pas la. loolu moom ñaan say waajur maanaam say mm-hmm. waajur. Mm-hmm. Euh, tar topp leen. Mm-hmm. tamit gàllaaj la. kooku gàllaaj la. yàlla saa bu nee jaamu leen ma lu mu ciy teg waajur. waajur kon nag yooyu yëpp gàllaaj la mais nit ki daal dama bëgg a wax ne daal yi nga xam ne ñun yooyu lañ jàpp ne moo ñuy musal ci bërëbu sayukaay yi wala bërëbu liggéeyukaay yi nañ ko teg ci suuf te tënk ko ci sunna yonent bi sa alayhi wa sallam loolu mooy sunu bien-être affaire bi foofu la nekk mais du ci ay xar foofu fa ku bëgg a mucc rek toppal ci sunna yonent bi sallallahu alayhi wa Ah, kon nag ah, maa ngi leen waxtaan bi eh, neex na eh, moom eh, yaa Seyda moo nekkoon tey sunu invité Ndeye Fatou Dramé ñu doon ko dalal Fanta Soukouna yow tamit ñu ngi lay jaajëfal lu baax a baax ci thème yu am solo yi ngay indi àjjuma gu jot mhm. di fàttali ndaw ñi waaye également di leen ñaax mhm. ci diine di leen ñaax également ci toogin ñu gën a mhm. rafetaat jekkalaat toogin yi dëgg la soxna Aïcha xanaa kay li may Euh, di ko jaajëfal mi nga xamante ne ndax euh, ci daara Oustaz Alioune la jóge mu ngi jóge ba fan la noonu sax Mboro la jóge ni bàyyeekoo ko foofu euh, xanaa kay di ko jaajëfal bu baax a baax a baax di la ñaanal yàlla daara ji yal na jëm kanam fu gën a kawe ñu koy dégg fu ne ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di nuyu ki nga xamante ne mooy sama xarit sama soppe Oustaz Alioune Sall maa ngi koy jaare bu baax ñu ngi ziare bu baax yow tamit eh, di eh, ziar oustaz yëpp. Mhm. di eh, jël nuyoo bi teg ko ci oustaz Assane Diouf mu mu mu séddale ko mu séddale ko ñëpp oustaz Adi Niass ci kër geeg yëpp. Mhm. mu ngoog Fanta gannaaw bi ñu leen gërëmee bu baax a baax jaajëfal leen. Mhm. mbokk yi dañuy jàll directement ci rubrique royuwaay ànd ceeg Fatou Diouf Faye.